asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. vendredi 11 septembre ñëw ak yéen yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy tey doore ko mu mel ni ki yëglikaay bi di suñu lamb moom tey la mu ñu xëy woon ci xëtam mu njëkk mooy docteur Alioune ak équipe am ñoom cernoo ko ak ñeneen ñoo xam ne daal ñu ngi ko wër mu taxaw ci biir lamb ja wala ci diggu géewu lamb ja di joxe la nga xam ne nii moom moo daal wala boog di discuter di waxtaan yëglikaay bi nag nee na li dox ci digganteem ak mandaam bi jeex fi mu nekk nii boo ko compté maanaam juróom fukki fan daal moo dox suñu diggante ak Alioune Sarr mbiru mandaam mi wala mandaam mi nga xam ne moom la yore di jiite CNG bi daal di jeex yëglikaay bi nag nee li am ba des mooy am na fukki fukk ak ñaari mbir yoo xam ne ni daal yoo xam ne ni ñu ngi ci tiroir ya di nelaw maanaam la ko yëglikaay bi tudde yoo na yoo xam ne nag ca moom sunu làmb ba mu ca njëkk a jukki bokk na ci daal wàllum arbitrage vidéo maanaam daal arbitrage boo xam ne ci wàllum vidéo day ànd ak làmb ji bi yoon boo xam ne bu ñu bëree bu coow amee balaa ñoo dem ñu mën koo lijjanti bu fekkee jar nañu bëriwaat ñu joxe ñu bëriwaat bu dee am na ko daan ñu teel koo joxe maanaam ca biir géew ba loolu bokk na ci mbir yoo xam ne sunu làmb jukki na ko ak loo xam ne tamit bokk na ci loo xam ne ñu ngi koy xaar ci yéen bés yu mag a mag yi ci làmb ji ak beneen mbir boo xam ne ñu ngi koy xaar maanaam contrôle antidopage daal lañ koy tudde maanaam képp koo xam ne daal yéen combat yu mag a mag yi ñu xool la balan koy bëree xool ndax yow dopewu nga wala déet mel ni que daal mbir yooyu a jukki mel ni kon daal bu fekkee yëglikaay bi ñëw na tey ci mbirum Tyson ak koo xam ne nag moom mooy Pape Konaté Pape Konaté nag ne nañ moom mooy coordonnateur ñi nga xam ne nii ñoom ñooy les sages de l'arène yëglikaay bi xëy na ñëw séq ak moom waxtaan moom daal la mu jàpp day jàpp na ne kii di Mohamed Ndao Tyson daal kenn gënu koo mérito maanaam jiital li nga xam ne moo di làmb ji moom daal jàpp na ne Tyson mérito na doxal li nga xam ne mooy làmb réew mi moom capitaine PK daal loolu la gis Ibou Ndiaye Ñoxobaay di ab microcentral nekk ci làmb ji moom moom daal am na loo xam ne daal mu ngi koy déranger ci mbirum njiital Tyson wala boog mbirum Tyson ñëw na di ko wax ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb ci waxtaan woo xam ne seq na ko ak ñoom kii moom am na loo xam ne war na koo bàyyi xel mooy Papa Sow digganteem ak Siteu yëglikaay bi ne kii di nga xam ne nii moo di Zarko fa mu jaar ak moom maal ma la ko def dal di koy daam ñu ne déet ne waay mu kawate sos kon nag moo tax yëglikaay bi ne day est-ce que kii nga xam ne moo di Siteu est-ce que mën ta jaaxal Papa Sow loolu yëglikaay bi xëy tey sampal ñu boobu laaj andil ñu ko ñeneen ñoo xam ne ni moom seen bopp la ñu bëgg a wone ba tax ñu doxoon soloon seenu dal dem fa nga xam ne moo di ca sunu làmb muy ka nga xam ne moo di M16 ma nga xam ne mu nga nekk ca yëmbal mbooloo ak ki nga xam ne nii moom moo di balaak ma nekk fa nga xam ne mooy ca parcelle ak dab daan mu jam ñaaju ñoom yi daal la ñu jàpp mooy saison deux mille vingt jàpp deux moom la ñu bëgg a def mooy wane seen bopp bu a baax a baax ñoo xam ne ni moom wane suñu seen bopp wala boog nañ doon wane seen a suux muy yëmbal ba nga xam ne moo di yëmbal mare deux victoire lañ jot a am ak la nga xam ne moo di ñaari défaite sunu làmb xëy ñëw tey dikkal ñu ci écrit boobu nga xam ne daal taxawaay ba ko na ko yëglikaay bi ne boo bëggee dégg dëgg daal yëmbal mare moom seeni mbir doxul am na fa seen koy wax moom ne nañ ko mbaaba mu amoon dañ koy écrasé maanaam daal fañ ko jaarale neexu ko ka nga xam ne nii moom mooy jóob de ak buuba moom ñoom sax ñoo xaw a def lu tane ñoo sowee mobilier waaye bu doonu ko nag ñoom moom mbir ya doon na fa gën a ñaaw ka nga xam ne moo leen di tàggat nag di moor fàll moor la mu xam ne daal ne na fukki defet yoo xam ne am nañ ko yoo xam ne day yu mettee dee metti la mu mel ni kon daal yëmbal marin moom soo bëggee dégg-dëgg seeni mbir moom ren dox defu ko yëglikaay bi di suñu làmb xëy ñëw tey wax nu lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne wala beneen yëglikaay boo xam ne fa la nuy dem mu sequ nag Abdou Gueye magi Tafa Gueye démb ci journal bi moom Abou Ndour moo ki nga xam ne moo di Abdou Gueye Abdou Gueye la mu xamle nee na daal mbirum tey si nag jiite làmb ji moom bu ñen ñenee waaw ña ca des ne déet Abdou moom ca ñette ne déet la ànd ndax jàpp na ne tey seen daal lan la defal làmb làmb moom ne na lii lay laaj ba tax ñu war koo jox làmb ji mu koy jiite ne na daal moom ba mu amee ci làmb lam cay am wan ko ginnaaw la def dee su ko ci gis wala ñu dégg ko ci ne ko la ñu koy teg moom Abdou Gueye magi tafaa gii daal d'accordul ca loola tey suba waxi noppi leneen loo mu bokkal ci Mbaye Gueye fit waak ja ak talaamu Balla Gaye ne lii yoroon na ko yemu ca magam di Mbaye Gueye tamit ne na ja nga xam ne nii moom la Modou Lo amee ak popularité ne ba mu ca tolla itam loolu lépp Mbaye Gueye dajaloon na ko ci biir carrière am Abdou Gueye rakki Mbaye Gueye moo xëy wax loolu ci record keneen koo xam ne ni ci record la xëy tey muy garaam mbañik moom nag la mu jël ren daal la yëglikaay bi ñëw tënkal ñu ko mu toll ci juróomi drapeau un million cinq cent dix mille francs ak ñetti nag moom mi nga xam ne moo di garaam mbañik daal loolu la xëy wala boog loolu la am ci saison bi nga xam ne moo taxaw am na loo xam ne tamit marqué na ko ci dox ci digganteem ma ki nga xam ne nii moom moo di Faye Mbodj di waykatu làmb nekk ci làmb ji waaye am na loo xam ne daal nee na metti na ko lool te du ko gaaw a diseere mooy defat ba nga xam ne am na ko ci kanamu ngel jon ca dëkk ba nga xam ne moom la nay wax simal loolu la Grand Mbagnick wax tey ci record mu mel ni kon yàgg maar tey la ajjuma rek ñu balu ñëpp ak baal ñëpp ak ñaan yàlla mu defal ñu saxdatu daaray ni te itam def jàmm ci àddina bi waaye rawatina réew mi nga xam ne fi ne muy Sénégal. mbokk waa Leewtoo TV ngi leen nii di bi nu ànd ak yéen la ziar si àjjuma ji. maa ngi lay fay ndey Koumba Fall di la delloo ziar si àjjuma ji nuyu internet yëpp. di leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm bu baax a baax te di ko sàkku si ñoom. waaw ñëw nag si jàngatu arène bi tey nag sunu laam la ñuy xëyee nee nañu nag 50 moo des si mandat Alissa bu mun a jógee si tetu CNG bi nee ñu nag am na douze recommandations yoo xam ne ba léegi ba léegi mi ngi si tiwaar li nga xam ne moom mooy CNG nee nag euh, si nouvelle euh, application yi nga xam ne moom mën na nar am si saison bi ubbee mooy ne daañu intégré xëy na ñoom si seen xalaat si waasu lam vidéo as euh, vidéo assistance si arbitrage maanaam su fekkee dafa am litige si jour combat bi soxlaatul sax ñuy xaar ay fan yu néew ni kase wala boog ñuy dëggal verdigu arbitre bi mun nañ ko xool si saa si ñu ni nag daañu effectuer aussi ay contrôle antidopage antidopage ci combat yi mag yi Babacar. waaw loolu daal maanaam bu amee yokkute lay doon waaw yaakaar naa ne fi ak 50 jours moo des ngir mandat mi jeex. yàlla nañ ko fekkete tal ko comme lu ma doon ñaan rek kii ñëwaat yàlla nañ nekk ki nga xam ne mooy gën ci làmb ji li ci des nag muy wàllum vidéo assistance moomu wala euh, nu ñu koy waxati euh, vidéo waaw assistance vidéo maanaam tey bu mbir amee ci làmb ji balaa ñu fay jóge ñu mën ko jàngat sur le coup lañ cay def ñu def ko balaa ñoo dem bu dee dañuy bëriwaat ñu bëri bu dee daa am ko am ndam ñu jox ndam bu dee arbitre daa juum ñu xam ne daa juum yaa ngi dégg loolu defe naa su amee yokkute lay doon te itam dina nekk lu gënal ñëpp parce que recours yi temps bi muy jël yooyu des mu jël ay kii ba indi sax ay jàppal bàyyi kon defe naa su mënee am loolu yàlla na yàlla def équipe bi di ñëw ñu mën a am lu mel ni ki noonu ak i tamit lu jëm ci wàllum contrôle anti dopage noonu ñu ko waxee seet nit ki ndax ci wàllum yaramam ndax yokku ci mu tàqali ko sagom def lu mu warul def yooyu yooyu yëpp defe naa ne su amee daal lu gën lay doon te itam yokkute lay doon pour làmb ji mhm. keneen ki nga xam ne nag tey moo euh, moom moo génn wax nag si journal bi moom mooy euh, Pape Konaté nu ko capitaine PK nekk coordinateur des sage de l'arène moom na mi ngi wax ne ki nga xam ne moo war a wutu ki nga xam ne mooy euh, Alioune Sarr moom daal lu ma gis moom nee na Tyson mérité na Euh, wuti ki nga xam ne moom mooy Alioune Sarr ñoo xabaay nag nekk micro moom nee na euh, bañul gaal euh, Tyson mais am na loo xam ne da ko si déranger. waaw loolu daal mooy li gis-gis yi rek à tout moment wala à chaque instant di gis ku nga xam ne day jàpp ne Tyson war na fi mën ne ka ca des gisee neneen loolu moo tax nag wér maanaam wute bëgg-bëgg nag ndey ko moom mooy tax marchandise yi di jar. Hmm. saa boo déggee marchandise jar na. jàppal ne yow da ngaa bëgg lu euh, orange man ma bëgg noir balaa kii bëgg la ca des kon noonu la mbir yi demee tey am na ñu bëgg ngir mu ne fi am na ñoo xam ne nag bëgguñu mu ne fi nag xalaatu nit la capitaine PK si lamb ji la bokk yaakaar naa ne bëree na ba def si lamb lu bare bare bare tey mu ngi Italie yaakaar naa defe naa kon bu waxee war na wax Ibou Ndiaye ñoo bàyyi waxatuñ ko ndax moom defe naa ne muy ay capitaine PK ak Tyson ak ñu ñu ak ñëpp ba tax mu bënn saa yoo ko seetee mu biir. Mhm. waaw nag foofu na dem si euh, nga xam ne moom mooy combat ak ki nga xam ne mooy Papa Sow journal bi nag mi ngi laaj ñenn nag ginnaaw nag mu sonalee ki nga xam ne mooy Zarko dóor euh, Zos mu daanu kaw est-ce que nag moom mi kii di xam ne mooy Siteu bu na mën a jaaxal ki nga xam ne mooy Papa waaw dama naan daal loolu mu def Zarko ku ko xam-xam ne jàmbaari fàkk tëdd la bëri ba Siteu bëri ak moom na mu metteeg na mu tare ak fa ñu mujjee mu am ndam ñu ne déet na waaye mu ñëw jël Zos bëri ak moom xeex ak moom kawoo am ca mu am ndam la moom Siteu te Zoss ku ne xam na ne ah bi ci làmbam doone ragal la doone mënta bëre defe naa ku jaar foofu tey yaakaar naa ne meneen mbër bu lekk avance war na war na la jox cër bàyyi xel ne war nga ko mën a jaaxal Siteu defe naa tey ci làmb par rapport bi mu ko commencé fi mu yegg si tey liggéey na am na lu mu def am na encadrement tax tey fi mu ñëw mu ñëw fi kon yaakaar naa ne ndax mën na jaaxal Papa Sow wala mënu ko jaaxal su may wax baatu jaaxal nag mooy ça veut dire que adversaire adversaire de taille la Papa am muy Siteu waaye Siteu itam noonu la amee adversaire de taille muy Papa muy làmb joo xam ne daal ñu ngi ñaan yàlla corona bi jeex rek ba ñu mën ko seetaan ndax di nga seetaan bu neex nday ko ci diggante Siteu ak Papa amin Babacar nu ñu nag si ñetti mbër mooy m Black ak dàpp daan ñoom nee nañu nag ñetti champion yooyu leen di xaar déwén pour nu mën a imposer Babacar dàpp daan ah.

wax ñu ngi ci làmb ji bëri yaa ngi ci làmb ji yàlla nañu am ay combat ba mën a ñëw wane seen bopp loolu la rek waaw ni ñëw nag si sunu làmb ba tey nag ak seen bilan tey nag bilan yëmbal marin la ñuy wax ñoom nag am nañu ñaari ndam ak fukki defet Babacar muy lu doy waar yëmbal marin daal daa mel ni marin xaw ma mooy la marin maanaam géej. géej géej est-ce que ñoom marin waaw muy nekk si bateau yi. waaw waaw ah marin yi kon ñoom est-ce que seen bateau ba farul tàbbi ca kii ba. ah daa mel ni yëmbal marin doxlewuñu de ah côté boobu ngay dem daal doxlewuñu de xam naa ne deux victoires dix défaites moom nañu liggéeyaat pour prochaine saison parce que nag lii moom du résultat bi gën. waaye nag la ah daa mel ni mbën ma kay est-ce que sax mbën ma balaa ñëw demuñu. yëmbal marin ñu leen di nuyu di leen ziar di nuyu waa yëmbal yëpp nag di nuyu mbër yi nekk foofu <laughs> waaw su jógee nag sunu laam dañuy fi nga xam ne moom mooy euh, record si xalima Abou Nour ginnaaw nag démb mu defee première partie ak interview Abdou Guèye te nag dafa ñëw nag euh, joxe deuxième partie bi moom daal lu ma gis nee na Abdou Guèye nee daal il faut que ñu auditer CNG. auditer CNG xam nga waaw audit de mooy càmbar la. gëstu la saytu la waaw moom daal loolu la gis daal. say mbir maanaam ndax tege na ci yoon la tegul ci yoon. Mm, gestion bi waaw gestion waaw li nga yore woon. bu dee ndey kuma fukki dërëmi réew mi ñu ne nga ko war def def ko fii ah te yow defoo ko nañ la ko doon xaare defe naa yoon moo war a santaane ñu càmbar la bien sûr boo ko fa defee sax dañ la war a càmbar ba xool noo ko fa defee ndax jaar na yoon mhm. waaw bu fekkente nag moom loolu la gis comme xalaat li ma lay wax la rek nit ku ne boo booxee ci mu defe naa am nga droit doo koy joxe ci sa xalaat mhm. Abdou Guèye loolu la def maanaam daa jàpp na Alioune Sarr dañ ko war a auditer mook équipe bi nga xam ne ñoom ñoo rek état du Sénégal lay doon ministère lay doon ñoom ñoo seen cëggal guy ñu déglu ba xam loolu fu muy mujjee mm. Abdou Gueye nag moom tamit pareewu si ndax ñoo ne attaqué nga ki nga xam ne moom mooy Tyson moom nee na su fekkoon ni Tyson kese la kon kenn waxatul làmb ndax joxul làmb dara loo xam dellowul làmb dara loo xam ne làmb joxoon na ko Babacar kon nag moom nee na gisul ne Tyson war a nekk président CNG. mooy li ma la waxoon léegi capitaine Pekar ne gis na Tyson Abdou Guèye ne gisul Tyson <laughs> gis nga li bu xalaat ni muy waroo addinaa tëdd noonu ku nekk ak sa xalaat Abdou Guèye moom la mu jàpp ne ne Tyson dellawul làmb la ko làmb joxoon moo tax mu jàpp ni warate mën a jiite mm. yaa ngi dégg capitaine PK bañ a gis la loolu nag mooy àddina kon Abdou Guèye itam la ma la wax rek la mu wax am na si droit kenn du ko ci jëlee pata sama gënal ñaam bi ndey kumba chaque jour ma wax la ko bu baax mm-hmm. na tamit si may gay nag dossier bu ñu defoon nag bu abul euh, nu defoon si wàllum naan premier tigre deuxième tigre ak troisième tigre moom nag ñëw na tranché na moom lu ma gis daal nee na may gay moom mooy premier tigre moom kese la te teg nee na am na jom am na fit am na aussi talent bu Balla Gaye nee na nag si popularité moom si Modou Lo la ko jëlee waaw maanaam daal bu ñu ko déggee fut ful la fit ak jom ak fayda lépp Mbaye Gueye dajale woon na ko mm. ba ca des mooy wàllu mën a bëreek talent bi Balla Gaye am tey ci làmb ak tel moom Mbaye Gueye woon na ko maanaam jom ja xam ne moom la Modou Lo amee tey ak popularité bi ci làmb it Mbaye Gueye amee na ko mm-hmm. kon loolu moo lay wan ne rek ah Mbaye Gueye jàmbaar la woon ndax ñoom ñoo fekkee bëreem ñoo nekkoon ay rakkam kon lu ñu la wax si moom rek da nga koy jàpp mm. defe naa ñu ñu ko tëkkaleel tamit ci làmb defe naa tey ah dama naan am na miritu làmb muy Modou Lo di Balla Gaye des sax mën ngay wax si ñoom wala nangam nit bañ ko nit gise ko leneen te fekk na demewul noonu la ñu wane rek ca nga mën a wax parce que moom moo leen jël exemple te bëri na ñu leen di jël exemple parce tey génération bi ñu bokk ay référence lañ ci donte ñeneen ay référence lañu waaye Balla ak Modou ku ne xam na ay référence lañ ci kon defe naa Mbaye Guèye daal jaanam wàcc na tey mhm. la wax daal mooy ña ak a moom nga ko jàngal a teg a mu sàmm ko te aar ko loolu la xaar ci doom loolu la xaar ci képp koo xam ne yow yaa jël place am mhm. ah, loolu am na solo Babacar lu ñu ak jeexalee na ak bilan 2 si wàllum lutte simple yi nag tey nag ni ngi dalal ki nga xam ne mooy Grand Mbagnick Grand Mbagnick nee na gagné na juróomi drapeau am na aussi 1 million 510 mille ak ñetti nag wax na nag loo xam ne ay gestes yoo xam ne Faya Mbodj di waykat marqué na ko lool lool lool Babacar. Faya Mbodj waaw noonu lay demee ba tey Ndeye Kumba Fall la. Babacar est-ce que mu <laughs> waaw Grand Mbagnick moom ku ne xam na ne futur champion la defe naa lutte avec frappe am na lu mu ci wane mais lutte simple boobu ñu abundul ñëw tey ci moom lim ci gagné à 1 million 510 mille francs. ak ñetti nag loolu tam baax nag ak façon ba taxawee waaw moo gën moo gën lu moo xam nga comme ni ko la fiy waxee rek lu mag mos moo gën lu mos mag kon grand bañik di ko félicité ci loolu mu def ak ses loolu nga xam ne mu ngi koy wax ci ki nga xam ne mooy faye mbuj di waykat bu mag ñuy nuyu yaa faye di ko ziar grand bañik daal li ma la mën a xamal daal mbër la moo xam ne nii moom ah mbër kaamil la di ci nuyu nag ku mel ni soppeem di jige jóob bu mbayang lu jige jóob bu reefan di soppe grand mu muy wax tamit nag si journal bi nee na moom pourquoi digéré wul défaite bi nga xam ni euh, am na ko si kanamu ngel joon foofu si simal xam naa na mu ko amee mitti mu am na bis yoo xam ne ba tey mënu ko digéré xam ne ñoom ñoo ñoo bokk làmb ji bés dina ñëw ñu dajewaat jël revanche waaw revanche moom du passé waaw Babacar nag si kàddu yoon bi ma Euh, xaw bu bu yaram bi sutante euh, mi ngi si woon di ma jàppale bu baax a baax ni aussi chéram ki nga xam ni mooy euh, ki nga xam ni mooy Khadija Diallo depuis Parcelles Assainies nuyu seen doom Maam Diarra Penda Rokhaya ak ki nga xam ni mooy Grand Fall du nuyu Asek chéri Khoudia Seck depuis Italie aussi mm. maa ngi koy nuyu Abdou Gueye Baye Fall jàmm gën Pape Cité aussi euh, maa ngi koy mm. daal di nuyu moo ko internet yëpp parce que euh, ñu ngi may nuyu jaarale ko si yow tuuti Yaay Sarr Babacar moo jaxaseeg nit ñi ah, tuuti Yaay Sarr maa ngi koy nuyu Asi Diagne sama naar boobu noonu depuis Mauritanie aussi maa ngi koy nuy tuuti Yaay Sarr moom nekk jot naa message bi nag xaw ma na nagam. kooku euh, des transferts yooyu yëpp jotaguma seen nel Babacar na ma ko jox. <laughs> parce <laughs> bu ci amee Babacar day paas de man du ma kott de damay paas. <laughs> ndax gis nga ko dara dàq dugal cristal message aussi sama anniversaire ñoom ñëpp gis naa ñoo ñëpp leen wax a euh, jaaraama. am na solo ndey Kumba Fall man nag tey damay nuyu internet yi xam nga. Mamadou Ban borom Colobane mu tudd. Ah, borom Colobane. borom Colobane. borom yére yi mu tudd. Jib Sène. Jib Sène aussi borom Petersen. ok maa ngi koy nuyu tamit maa ngi koy bëgg bu baax a baax Mame Balla Gueye. ah Mansour Dieng Moussa Dia ñi ñëpp dañuy xool Mor Samb ak kan Tafa Dem ak nga xam ne moom mooy Mame Balla Gueye. Italie la na mu Khadim Mbeng non ñii dañuy commenter revue bi Daouda Mbow Laye Fall. Abdoulaye Mbaye ca États-Unis Cheikh Diop ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu ak booy Fall. xam nga dem dafa amoon ay quelque tàgg euh, ba ñu indilaat leen ko loolu moo tax ma leen nuyu te Cheikh Bass moom ci la bokk Cheikh Bass maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax di nuyu ki nga xam tamit moom mooy sama jigéen di suma xarit di sama rakk di suma lépp Aram Ndiaye maa ngi koy nuyu ah. yaay Cheikh yi maa ngi koy ñaanal jàmm bu baax a baax a baax di ko wax ne waa dundal yow loo dund doy rek di ko ñaanal yàlla yàlla bàyyi la ak say wajur ak say rakk ba nga leen di teral barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Aram di ko nuyu bu baax a baax maam Cheikh borom Daaru Salaam Couture la maam Cheikh borom Daaru Salaam Couture moo fi jaar mbaxana bi waaw mbaxana bi xaadim la sëñ xaadim ja ca yàgg maan sama caméraman bi moom à tout moment mu ngi may soutenir ci côté bu ne ma ko ñaanal jàmm di nuyu képp nga xam ne daal yaa ngi ñuy suivre Saliou Khoule tam du ko mën a fàtte di ko nuyu ndax ku la safooti nga faale ko te à tout ñëpp xam nañ sama diggante ak moom kon yàlla na yàlla def jàmm Sénégal dal yi moom maa ko jënd ci xaalis laa ko jënde montar bi moom Mor Ndiaye <laughs> ci états ko def portable bi bàyyi Sall jël mën leen incha